en matière de politique c'est un peu difficile pour nga xëy rek di prononcer mais nit ki mën na am yaakaar xam nga dañuy dem élection 2014 seen mbokki journaliste yi ñëw laaj ma may leen man de li ma jaaxal mooy pourcentage bi laa xamul ñaata lay doon mais dinaa gagné réponse boobu laa leen di jox. Eh, xam nañu ne tey eh, Idriss Seck sukk na jaaxaan a ci des te fi may nii moom puus mu daanu ñàkk puus mu daanu kooku moom werante nekku ci. pare nañu en tout cas ñun ci biir département bi Longo ak ville pour que vraiment ñu yóbbu ko ca biti mu dem noppalu ji jël retraite am anticipé retraite anticipé xam na moom lay def am politique. wax dañuy wax au conseil des collectivités territoriales te ku ci ne xam na ne ñun suñu liggéey ci wàllu décentralisation la ëppee parce que def nañu ñaari mandat en tant que président communauté rurale mën naa wax sax ne ëpp na ñaari ndax def nañ ci 12 ans ñëwati liggéey ci biir gox bi te loolu wane na ne ñun xam nañu réalité yi nga xam ne moo nekk ci gox yi réalité yooyu nag moo tax ñun ñu bëgg a taxaw ci biir au conseil bi nga xam ne yàlla dogal nañu bokk ci tey jii pour mën a utiliser canal boobu pour que mën a développer suñuy gox bokk na ci comme ni ma ko waxee léegi gox yi ak gox goxaan yi soxla nañu lu bare bare bare ci wàllu équipement collectif yoo xamante ne gis nañ ne programme yi nga xam ne président tëral na ko comme PUDC ak yeneen yi demee noonu bourse familiale yeeg yeneen yi demee nekk noonu vraiment gis nañ ne mu ngi développé gox yi développement boo xamante ne lu yaatu la te ñun xamal nañu suñu bopp loolu donc boonu yaakaar naa ne xëy na terrain bi euh, institution c'est une nouvelle institution d'accord mais nag Eh, eh, fekk nañu ñun ñu ne woon ci waar wi di liggéey xam naa dafay ñëw rek compléter liggéey bi nga xam ne war nañu ko def te am nañu moo tax am nañu yaakaar ci ne eh, peu d'expérience bi nga xam ne am nañu ko bu ñu ko boolee ci loolu dina war a mën a développer gox bi dina war a mën a développer Kër Moussa mais nag boo xoolee aussi acteurs yi nga xam ne teg na leen même bu fekkente ne loolu mu ngi ci biir aussi gis nañu ne ay nit la ñu yoo xamante ne war nañu mën a liggéey ci wàllu décentralisation dinaa ci citer ñaar yoo xam ne jël na leen ci te ñoom ñaar ñëpp kenn koo ci kenn ki ancien PCR la maanaam ancien président communauté rurale la keneen ki aussi il est en activité il est dans son mandat donc bon kooku je pense que bu dee expérience am na ko ba mu doy pour war a mën a indi euh, euh, comment dire war a mën a indi euh, liggéeyam ci wàllu au conseil des collectivités local victoire